Babacar mbay nga xamante ne caaya moo ko moom doo fecc sa kanam bi tudd ma neex laa nuyu yow sama xarit nga kan liiru sama xarit nga sama grand nga sama lépp nga man da nga di sama waay dem entraînement xam nga dafa nekk xam nga mu neex ma moom dafa nekk woyof nekk koo xam ni moom ñun daanaka sët ak maam la ndax xaritoo bi ak mbalagante bi mais kenn du moom maa ngi lay dalal di am mbégte contentement doomu ndey Xaadim Njaay keroog jooy ya fa jooy nag metti na ma lool waaye dinañ ko gën a yaata liiru da ngay fekk sa kanam gi. <laughs> wala du ma mën a ban ataay nga bëgg bu foor wala bu sedd. danoo am ñaari invité yoo xam ne dama laa laaj ataay bu foor nga lan la lu ma la def. Eh, ñoo bu baax na. Ah. Ah. danoo am ñaari invité yoo xam ne. Ah. jooy moom bu dee jooy rek. waaw non liiru moom ay jooyam amul rongoñ mais kee sax dina am rongoñ da caat moom danaan may ma ma jooy. balaa émission bi dama bëgg nga may ma jooy. nga ni ko caat di nga jooy mais fii moom bu fi ñëwoon dañ naan ko mënuñu laa may nga jooy. tey moom du fi jooy da ngay tegu ci yoon dina ñëw nag xëy na. d'accord euh, Betty uh-huh. bisimilah doxalal. d'accord magu démb yi jërëjëf parce que kii dafa war a dem entraînement moo tax. da nga dem entraînement. waaw dafa war a dem entraîné ji. ban ah, entraînement après. ayca mi ngi noonu. liiru ñëwewu la wax. may leen ñëw bi waxtaan bi dama daan dem régie mais exceptionnellement tey moom duma duma duma duma dem régie ah. du ci dem entraînement. Ah, entraînement ko bàyyi non liiru dini lay kii dini moom day bëgg dem entraînement eh. mais entraînement dégg naa moo génne décret ni na ko liiru. waaye tamit may leen liiru. <laughs> man de muy entraîné ak ku war a bëri. mais liiru. waaw liiru. temps yi nag da nga xew. xam naa ni yaa Xaadim Njaay moom da ngeen a xew mbër yi yéen a ci gën a ëpp bay rek waaw fan yi jamono ji passé dañ la gis nga mel ni da nga ko demoon seeti hmm. gannaaw ban ne tànkam wala mu tawat tuuti waaye Xaadim Njaay waaw bu caaroy ah. waaw le boucher du dimanche euh, ama je rappelle que ni waroon ngeen bëre hmm. mais du mujj ngeen mujj bëre ndax dafa xaw a tawat waaye loolu lu ne yàq na la ko ci hmm. nee na yaa ko liggéey yow ak Balla Gaye ak yooyu loolu nan la demee waaw biti euh, bala maa wax foofu dafa am solo benn jigéen bu ñuy wax Yande Diop. tey la anniversaire am Yande. waaw maa ngi koy def joyeux anniversaire sama doom la sama xarit la ki bëgg rek moo la sonal. Yande Diop waaw mais mën nga waxaale sama jigéen la <laughs> vraiment maa bëgg sopp ma lool tey la nekk ak maître Ndiaye ba sama avocat bi tam tey la anniversaire maa ngi leen di wax happy birthday to you. Mhm. voilà foofu nga may laaj dama ciy sawar. Xaadim mhm. euh, sama grand la. suma mag la vraiment. Mhm. li mu def ci làmb defuma ko. Xaadim Njaay mun naa wax ni li ko dal nii xëy na cat la rek hmm. chat la ndax kenn yéenewu ko Xaadim Njaay wax na fi ku nekk lu nekk <laughs> waaye nag wax dëgg yàlla lii ko dal kenn yéenewu ko dëgg la kenn yéenewu ko xam naa tamit bi muy wax loolu tamit mm-hmm. naan man maa ko liggéey ma bal nga xam naa ne ay kaf la ko jëlee sax mm-hmm. ndax xam ne loolu amul man Xaadim Njaay jaralu ma génne 1000 francs naan damay dem ci sëriñ di ko jox mm. pour naan ko liggéeyal ma ko non dama ko def. mais lan moo taxoon nga déplacé wu dem seeti ko. dama ko dama dama yëg feebar bi. parce que en général mbër yi dañuy ragalante. non non non man suñu ñu dépassé nañ foofu man xaarim dépassé nañ foofu ba ci xale yi sax war nañoo dépassé foofu. ndax lii ñu leen di woon dañ leen di woon euh, yoon rek. ndax tey mun nga mun naa war a bëre caamaas mi tey jël avance am tey dal na dem caamaas ma def déplacement dem seeti caamaas. waaw comprendre nga ñaanal ko mu tane ak jàmm. lamba leen di boole daal lamb moo ne bu dee liggéey ku ci am sa kër nga yóbbu. Mhm. comprendre nga tey jël na avance man ma jël avance. mu feebar ci diggante bi am naa droit dem seeti ko. léegi jooy ba pare ñaanal ko. loo doon jooy dama ko yërëm. moo tax ndax xam lu tax ma. lan la da nga ko fekk nii amul doole bu mu fajoo wala. mbokki mbërëm yi ñëwuñu seet si ko assisté ko wala lan la ba tey ba tey loolu ci la bokk ndax xaadim. Mhm. def na lu ne ci làmb. dëgg la. bégal na nit ñi ba taay bëgg war a dajeeg moom moom doo nelaw. bégal na nit ñi ba taay. tey mhm. xaadim Njaay su demee ba ba feebar. Mhm. ba génn naa nan ko jàppale nan ko ndimbali. loolu ma xool ko mënuma ko loolu laa mënut a digérer man. xam ne at lim fi def at bégal nit ñi am ñu muy tiitaroo di leen sagoo fu mu toll di leen tiitaroo di leen sagaaw comprendre ñooñu tey waruñoo mën a xaar Xaadim Njaay toog di wax nañ ko ñëw jàppale ko dëgg la comme ci yëkkat sa téléphone ne la carte téléphone damaa feebar dafa war a jiitu ndax bégal na la fu ne tiitaroo na la fu ne defandar la fu ne comprendre nga mm. tey jii mbër yi tey yàq na leen lu ne mm. comprendre nga mm. waaye eh, tooy man nee naa loolu jaruñu koy xool jaruñu koy topp ndax moomin la yàlla topp ko dara. ak nit bu toll ci métti. très bien war la dimbali loolu la moom laa comprendre man. bugguma bugguma bugguma non soo déggee ma wax la loolu <laughs> wax la dégg-dégg la laaj. tey jii ko lu ne yekk na ko fi nit ñi. waaye dama ne bu ñu xool ci loolu su ku xool ci loolu doo ko jàppale ku xool ci loolu doo ko dimbali moo tax ma ne la <laughs> ah, jar sa topp loolu damay ñaan yàlla nit ñi. champion yi nekk ci làmb ji. ñëpp la champion bàyyiwuma kenn est-ce que ñëpp la juboon ñëpp non d'accord déggul ma am na ñoo xam tey na làmb yu fi passé. dëgg la génn na ni diw yàlla na daan diw diw yàlla na daan diw. loolu dëgg la ci loolu doo ko jàppale nag. waaw ku xool ci loolu doo ko dimbali nag. wax na fi tamit mbër yi am na lu leen dal. waaw comprendre moo tax ma ne bu ñu xool ci loolu. nan def te yàlla tax xam ni seen mag la xaalis nag yàgg na fee ji ñaar ay kii comprendre nga eh, eh, seen kilifa la seen kilifa la. Mhm. seen mag la magum làmb la tey natt ku ne lay dal. waaw tey jii li ko dal kenn yéenewu ko. Mhm. comprendre nga tey su demee ba amee tànk feebar war nañ ko mën a jàppale. waaw comprendre war nañ ko mën a jàppale. Mhm. moo foofu lay waxee man. ne ku nekk mbuus na laa wax loolu na xarit man mi lu ma yekkul amul. Mm-hmm. te tay ba ko dara jëlee man maa fa jiitu c'est normal. dëgg la da ngaa baax rek. comprendre mm-hmm. tey jii da euh, taxaw fii loon taxaw Waly Seck xam naa yëg ko su ko yëgee dina ko jàpp ndax di ko ñi taxaw di wax ku laal Waly Seck mu laa mu dal ci koom mm-hmm. comprendre nga. tey am na ñu fi nekk tamit ay autorités yu fi nekk tey ku leen musa laal Khadim Ndiaye dal seen kaw damaa bëgg ñu génn ñu jàppale ko su fekkee jar nañu évacuer yooyu yóbbu ko France sax ñu def ko ndax tànk bi dafa metti tànk bi dafa metti man bu ma ko tiimee mhm. ah xool Khadim bi ma doon waxal barki démb mhm. ah at barkaati démb ma xool tànk bi seen seen seen combat yéen kan moo leen jox avance. kan ci yéen yow yi kan moo waroon xaas moo ñu joxoon avance. ah xaas moo leen joxoon ñoo ngi ko Ablaye Diop xaas moo tëggoon lamb janvier bii la waroon doon. ah ngeen ko woon mais moom compréhensif na. comprendre na situation non non dina comprendre ndax ndax wax dëgg wérul. ku wérul nag nooy bëree. d'accord léegi ñu ñëw ci géejewaay bi nga xamante ni. man daa affaire xaadim laay wax ba noppi may ma tuuti. ah yaa fa dugg may ma tuuti ma ñëw rek. non mais bëtt nag waaw dama lay déglu non dama lay déglu tam mais waaw booy dama lay déglu non dama lay déglu sama xarit nga sama lépp nga sama grand nga mais émission bu dee ñun dañuy poser question bu ñu bëggee question nga ne ma da koy déglu. non non xaadim bi laa wax pare. léegi bàyyi bàyyi la xaadim bi laa wax dama bëgg. et puis loolu lu sérieux la. voilà lu sérieux la. waaw xaadim man effectivement. feebar na mu bokk la dara feebar na bokk la dara. te nit ku baax la ñëw na attaaye jamono jee passé avant muy feebar. marqué baax la bilaay non non amul problème c'est que moo tax ma ne nit ñi buñ ko comprendre buñ ko topp moo tax ma naan leen moomil la. xaadim ministre des sports. waaw bu baax la Lat Diop man maa ngi koy ñaan moom moom la yàlla denk espoir bi te doomu géejawaay la te gis na ni muy taxaw doomu adama yéen xanaa CNG bi du def social bu mbër feebaree ah, ah yëgu ma ko de ak li ak li leen def ministre des sports bi maa ngi koy ñaan sama laaj lu mu ci man mu taxaw ko ndax su ko déggee dina ko def muy Lat Diop ndax waaw mais ministre des sports dafa dafa sori CNG bi nga xamante ni ku retard mu dagg la ku nangam mu dagg la dagg daggee yi leen def est-ce que du ci def social très bien loolu war naa mën a ne ah. waaye wax dëgg yàlla gisaguma ko ndax am na ay mbër yu fi yàgg tëdd fi feebar te mm. kenn jàppu la ndax suñu papa Mohamed Alé ngi ne dafa feebar boobu ba léegi yàgg na comprendre keneen ak keneen ak mm-hmm. keneen Khadim Ndiaye daal maa ngi wax ministre des sports lu mu ci mën mu jàpp ci ndax Lat Diop ku baax la doomu Géejawaay la te ñëpp la fi nekkal yemalewu ko biir Géejawaay donc li muy def lu mu ci mën fekkee mën nañ ko jàppale ñu évacuer ko ñu évacuer ko Madame Faye Sall sunu yaay ji ñoo ngi koy ñaan tam ndax yàgg na dimbale ay doomu aadama Xaadim Njaay lu ci waay def rek. moom sant mën nga ko defal mën nga ko defal ndax xamul tax. Euh, tey nee naa ko maay sa avocat chaque jour ñu déggante man ak moom. Mhm. fu mu toll dafa may wax. mu toll dafa may wax ñi ko jàppale yëpp nag tamit wax na ma ko. waaye comme ni exa affaire bi jox jox. xam nga lan la prise en charge très bien jël ko en charge su laajee yóbbu ko France dem faje ci ko ñu def ko ndax tank mooy nit tànk mooy nit tànk mooy Kéba Kane tam wax na ma koy jàppale mais moom moom day liggéeyal maître El Hadj nekkoon garde corps am waaye nee na ma gisagu ko gisagu ko ba léegi ah, ah ko moom nee na moom moo nekkoon garde ba ci na moom la doon àndal moo nekkoon garde corps am ah. voilà dama mhm. mais gis nga àdduna méthode la ak organisation mënuñoo nekk ci làmb ji mu am kuréel goo xam ne ñoo ŋànk làmb ji muy CNG nit ñëwewul a def lenn te jokkoowuloo ak CNG mhm. tey boo xoolee ci côté football bi tey jour bu ci gaañu mais dañ lay gérer waaw dañ lay toppatoo bu jaree ñu évacuer la dañ lay évacuer dëgg la mais dafa war a law tey parce que mhm. benn ministre sport bi la rek waaw du ministre sport football kese dëgg la moo yor làmb ji tey des centaines de million la ñuy wax ci mbër mi tey waroon na noo organiser wu ci cachet noo xam ni noo xam ni jar na sax yow say cachet toujours mooy am lu cee coppati fa di ko dugal fenn. bu ëllëgee. tey xoolal père Mohamed Ali. ak ñu ko jiitu. ñeneen ak ñeneen ñoom mooy bambara ñoom ñëpp doon lañu. xool xool Pape Diop Pape Diop Bosson tey tey ah, Marème Faye Sall ah. nu mu jëlee en charge Pape ah, Pape Diop Bosson. Mm-hmm. est-ce que mën na ko ci keneen ak ñeneen ñoo xam ne defoon na ko waaw mais mais ñooñu ñëpp c'est bien beau c'est bien beau waaw CNG dafa war a am structure bu taxaw xam ne ëllëg fii mu toll nii fii mu toll nii à l'heure où nous parlons waroon na fekk CNG évacué ko dëgg la man dafa am laaj bi ma bëgg a njëkk laaj mhm. déjà Lirou Diagne Euh, yow lutteur en activité nga. waay. no non bàyyi maa ngi xamuloo ma dara caa. lutteur en activité c'est-à-dire li laa rek mi ngi bëre. waaw parce que parce que waroon na bëre le premier janvier. waaw janvier la ñu waroon bëre. janvier ngeen waroon bëre. waaw mais Lirou Diane seen licence yi. am na assurance wala amul. si day am assurance kay. voilà foofu la problème day am assurance. léegi il faut se poser la question assurance. bi seen cachet lañ koy dagg. waaw assurance bi ban njariñ la amal moom xam nga gis nga bëti. waaw il faut nga laaj ah. assurance.